comme ni leen koy toppale lépp loo xam ni moom moo di actualité lu jëm ci réew mi rek mbokk yi nañ leen ko toppal rawatina jëmm ji nga xam ne moom la ñu jàkkaar lool nee naa leen bokk yi kenn dootu ko présenté suñu plateforme ndax bu ñu ko waxee moom moo di Serigne Cissé borom tawféex suñu borom may ko nag ci wàllu xam-xam ko ci wàllu ñaan may ko ci wàllu listaxaar may ko ci wàllu nit koo xam te ni dafa bëgg bayre wala nit koo xam te ni dafay dem fu mu déposé liggéey ñu recité ko saa boo jëflanteeg Serigne Cissé mi borom tawféex suñu borom dina saafara say jàngoro nit la nag koo xam te ni yaakaar naa leen mbokk yi nee leen jëmm ji ndawee noonu la xam-xam bi bare ci wàllu seet ci wàllu xam-xam rek bàyyi ko Serigne Cissé tey nag ñu war a waxtaanee moom lu bare bare bare bare bare bëri Serigne maa ngi lay nuyu di la ziar. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim mbokki jullit yi nuy seetaan mbokki taalibe yi ñoo ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di jiitati nuyoo bi Serigne Mountakha Bassirou suñu borom bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu tam wérum di ñaanal tarixa yëpp tijaan xaadir laay ñesin ñëpp saa borom bàyyi leen fi ñu yàgg fi loolu te nu wér noonu leen def di ñaanal waa diaspora bi suñu borom dafa leen jàmm ak tawféex ba ñibbi seenum réew di ñaanal tamit xale yi jaar ci yoonu microgramme suñu borom defal seen yaakaar yàlla bu mu tas ñiy caabi féete ginnaaw yàlla na leen caabi fu féete kanam te suñ borom musal ñu ñëpp ñiy tëdd ci opéré suñ borom yëkkati wa sallam da nga a laajale biir ñi nga xam ne TV mooy sangatu dërëm bi xam naa ne su ma ko waxee dina la jaaxul lool waaye waa diaspora bi <laughs> sangatu dërëm bi. waaw daa am sangat yoo xam nag comme ci xeeti ubbikaay ci lay dox nga xam ne tey jii ne ay limi dërëm la rek yoo xam ne moom ngay jël boole ko ak sangar gi boo ko sangoo moom it dërëm yi nga tey jii yi nga gis yëpp ay dërëm la yoo xam tamit yu tegale yii nii yëpp ay ay dërëm yoo xam ni eh, li mu dërëm lay nekk yoo xam ne moom nga koy jël boole ko ak moom ak yu mel ni ay xeeti parfum xeeti parfum yi neex nga xam ne tey jii nii moom lay àndal boo ko sangoo moom doomu aadama lépp loo xam ne tëju na rek ak jafe-jafe bu mën a am ci wàllu wërsëgam rek bu soobee yàlla suñ borom dana ko ca ubbil te bu soobee yàlla li mel ni wàllum koom moom suñ borom dana ko ci defal moom dana ko am moom ndax nekk na sangat goo xam ne lim dajale moo bari waaw nga xam ne tey jii nii defuñu ci benn xaalis bu du dërëm xam nga fi mos naa fay présenté benn sangat goo xam ni ay dix mille kese lay àndal. ànd bii nag dama leen di wax sàngat goo xam ay dërëm kese lay àndal dërëm kese lay àndal moom nga koy boole ak parfum yoo xam ne yu neex lay nekk yu cher di ko sangu wante doomu aadama jafe-jafe bu mën a am moo xam daa tëju ba ni rab wala tey ji mu nekk ci jafe-jafe ci wàllu wërsëgam bu ko sangoo bu soobee yàlla suñu borom dina ko bil wërsëgam incha allah bu ko moom na leer na leer moom doo ñàkk waaw doo ñàkk bu soobee yàlla ndax xaalis moom dërëm a ci gën a mujj moo ci gën a mujj cib xaalis ndax boo dee compter tey jii nii cent franc moom ak dërëm ak dërëm mooy li nga xam ne moo mujj cib xaalis kon loolu nag nga koy sangoo loolu nga koy boolee sangoo ko doo ko booleeg dix mille doo ko booleeg cent franc dërëm yi kese li mu dërëm kese nga koy bool di ko sangoo boo ko sangoo suñ borom dana def tëju goo tëju ci kàttan yàlla boo ko sangoo da nga da nga sant ne yow mi am nga tijjee ko sa bopp mbir yi dana yomb dana jafe ci kaw kuy liggéey nag nekk ca dara laay wax nekk ca dara dégg ngeen ko mu ne ci kaw kuy liggéey nekk ca dara ñu ñëwaat ci lancet bi <laughs> xam naa ne diggante tey topp naa la lancet bi ak bari pexe sëñ bi daal gàllaajo boobu lañset bi waa sangat gii nga gis nag mooy laamset yi juróom-ñaari lamset lay nekk moom laa war a defaraat ni ak juróom-ñaari pusa ak téeméeri xeeri xong xam naa di ko won ci kanam tuuti di ko won ñi nga xam ne ñooy seetaan juróom-ñaari lamset lay nekk ak juróom-ñaari pusa ak téeméeri xeeri xong saafara bi nag makan buñ ko dee liggéey bi bisub àjjuma leen koy liggéey comme nii tey moo tax ma jël ko tege ko ne bii néeg boo ko sangoo ba pare saa boo ko sangoo da ngay jël laam set bi si ngay ñaan say ñaawti say ñaawteef saa boo sangoo pare da ngay jël benn lanset ak benn pusa nga wax ni juróom-ñaari sangoo mooy waral juróom-ñaari yi ak juróom-ñaari ak juróom-ñaari pusa yi ak juróom-ñaari lanset yi saa boo sangoo ba pare dangay génn benn pusa ak benn lanset nga ni lanset yi maa ngi ciy ñaan lépp li nga ragal rek ci sa jëmmi bopp ci kaaraangeeg lépp nga ñaan ko ci lanset tifli ko ci lanset bi jël lancet ba gas ba mu xóot nga suul bu dee amoo foo xam tey màkkaan boo xam da nga fay gas suul nga yóbbu ko ci poubelle ba puso bi nag ci ngay ñaan li nga bëgg lépp ndax puso moom ñëpp a xam ne day ñaw rek day boole gis nga yére bi li muy rafet lépp puso ko def yi puso boobu nag ngay jël tee ko ñaan ci li nga bëgg lépp ci say mbir ci sa àddina sa avenir yëpp nga jël ko tiflu ko ci puso bi dem ba fenn rek nga roof ko fa jam ko fa nga xam da nga ko fay jam doo ko nekk di ko sànni da dem ba si miir nga jam ko fa wala nga dem ba sa duus nga jam ko fa noonu ngay def nag di sangoo ba sangat gi jeex ba sangat gi jeexee nag ba mu des xeer yi xeer yooyu nag da ngay gas benn pax bu xóot nga ñaan ci lépp loo xam ne tey jii nii ragal nga ko wala lépp loo xam ne tey jii nii gënul ci yow wala bëgg bëgg nga nit bëggoon nit def la ko moo xam ku la liggéey ñu def ko ci bi ñu gas wàqi ba mu moo xam ku la liggéey ay jafe-jafe mel nii moo xam ku la liggéey nekk ci jafe-jafe nga gas ba mu xóot suul xeer yi sangat gi makkan saa boo ko dee sangoo barke Seydina Mohamed nit ku mën a nekk ak ku mën a nekk bu la dee liggéey bu tawut a bàyyi dina gis dina gis kii ndax li li tax ma puso moom day jam lamset day dagg te képp ku la bàyyiwut laa la wax moo xam sëriñ ba lay pexeel moo xam ko la yóbbu ci sëriñ ñoom ñaar ñépp am ay jafe-jafe te li ci gën a yéeme muy li ci gën a yéeme xeeti tànk la lay jàpp képp koo xam dalay pexeel ay tànkam lay jàpp day mel ni digg tànk day mel ni puso moo ko siy jam nga xam ne biir tànk bi biir tànk bi tamit day mel ni day am lu koy xotti parfois nga dégg ni du ko jàmm naa sama tànk bi da daa biir biir tànk bi am lu koy xotti wala sama dëkku tànk daa mel ni ay pousse la koy jëm bii nag nit bu la bàyyi te liggéey noonu la koy def nga xam ne day dem ba yàq tànk bi nga xam day dem ba am problème bu tànk doxati nga xam ne tey jii nii lu tax mu lay def loolu mooy ba ngay dem ci sëriñ sa tànk nga doxoon dem fa léegi nag day damm sa tànk yow ba yow doo dama mënatee demati fenn léegi nag noonu la moo tax dafa nekk kaaraange gu am solo goo xam képp koo sangu ak jafe-jafe boo mën a am suñ borom dana la ko teggil incha allah bu soobee yàlla. tey ma ñëwaat gis secret boo xam te ni secret bu yéeme la mbokk yi lay bàyyi sax ma jël ko won ko mbokk yi ndax xam naa ne nee naa leen sëñ si daal. meneen sëñ Cissé la ndax tey lii dafa am secret boo xam te ni xam naa ne nekk na ci dafa bëgg a téye ko wan ko bokk internet yi secret bi ci nekk ci lii saabu. lii sax lii saabu néew la. jàpp gi ma koy jàpp nii sax dama yorum jàpp baaxu ci man ndax sobe la lii saabu néew la desetu saabu néew la. boo demee ci margo yi ñoom boo waxee ñoom dana la ci may lii ak sàngat lay àndal te li ci gën a yéeme makkan dama la koy wax. am na xeetu xeeti njàmpe yoo xam ne day mel ni genre njàmpe ñax li may wax sama mbokki séeréer si xam nañ ko wala sama mbokk yi nga xam ne ñaan ci fitiskat yi te xam nañ ko moom nga koy booleel ak saafara bi da ngay mel ni kuy sangu yow doomu aadama da ngay jël njàmpe gi jël saab bi bomb xëbal nii ba mu xëb nga jël di bomb yaram bi bomb yaram ba mu maase comme ni ki ni sangoo boo paree nga tàng ci saafara bi di sotti muy wàcc di sotti muy wàcc gis nga makkan kii nit ki buñ la liggéeyan ba mënatoo dara dara ci àddina jàpp nga ni sa àddina yàqu na mënatoo dara lii boo ko sangoo day deñ ci saasa gis nga doomu aadama ni muy tilimee di sangu nii di bomb gis tilim di nii di wàcc noonu lay wàcc lépp loo xam nekk na ci yaram moo xam nit ki dafa feebar yore jàngoro ci yaram moo xam dañ kaa kort wala ñuy njabar ko wala lu mel ni xeeri catak wala xeeri seytaane wala yooyu moo fa nekk ndax nit ki ñu ko jëlee amaana yii ñuy wax yëpp daje na ci moom muy ma man naam kooku feebar ko jël ci àddina man naam kooku ba muy feebar tamit lii sonal na ko cat wala rabal ak sayda ndax nit ko dund ko nekk am na ko nga xam ne kon ca qualité nit kan ko jëlee rek ca kan ko jëlee rek moom la ñuy dox ci loolu tamit nga xam ne moo ànd ak sa afara bi nga boo xabalee nii njàmpe gi ba pare du njàmpe yii nag njàmpe ñax yi la yu weexi la boo xabalee nii ba pare nga bomb doo bomb baax sa da def nii rek bomb ba fépp xëpp kanam geeg fépp sangu fépp nga door a jël saafara bi nag raxase ko ko raxase ko kii boo ko sangoo jër nga koy nekk di ko bari ci saw yaram mën nga kaa sangoo ñaari fan rek jëru nga koy nekk di ko bari saw ndax boo ko dee bari saw yaram man man na mën naa kii du tëj sa war sax sax wante day nekk kaaraange gu foor a foor wante jërul nga koy bari sax wante kii jafe-jafe yi ma lay wax moo xam dangaa dem ba ñàkk yaakaar ci sa bopp sax bu buñ la ko joxee te mu nekk loo xam ne loxoy nit a ko def wala pexey nit giñ naa ko Sëñ Tuubaa day deñ ak nit ka fu mën a nekk day deñ njabar ga moom day toj moom saabum néew makkan dafa bari solo gis nga saabum néew sax dañ ciy noob doomu aadama am na xeet yoo xam ne ñaar ñuy bëggante nii rek ñaar ñoo xam ne dañoo bëggante xam nga am néew bu gaañoo moom dee fu mu jëm dañ ko fay jëm buñ ko dee sang dañuy wetal côté bii buñ ko dee sang dañuy wete ni buñ ko dee yóbbu ci armeel dañ koy gàddu buñ dugalee ci bàmmeel bi dañuy def orienté gi yëpp kon néew mu mënatul dara léegi nga am desetu saabu néewam gis nga am na yoo xam ne buñ ko bindee jël ku góor ki wala ku jigéen ki ki nga xam ne tey ji dafa bëgg ku góor ki góor gi bañ wala mbokk yi bañ wala waajur yi bañ wala ku jigéen ki bañ am yoo xam buñ ko bindee ba gas digg saabu néew bi gas ko nii ba mu gas ñu jël téere bi dugal ci biir jëlaat àkkati àkkati yi ci nekkan tëj ko ci maase la ko ci nii bam bam ba nga xam ne téere bi doo ko gisati ñu jël lii suul ko néew ba bam faatoo dañ ko doon jang-jangee fu mujj ci biir ci biir suuf saab bi ci biir suuf lay jëm gis nga kan fa def noonu rek la def ci nit ki fu ko nit ki jëmloo foofu lay jëm fu ko nit ki bu nit ki tëddal néegam sax woo ko ne ko damaa laa soxla heure bu mu ko mën ne ko ma laa soxla damaa bëgg nga ñëw fekk si ne da ko fay fekk ci saasa ndax lu tax muy fan ko jëlee le mooy ci jëmmi doomu aadama nga faatu la nga xam ne gàllaaj dafa am makan parfois nit détourné xelu jàmbur ba tëddee nit ba ëmbal ko te ci yii rek la koy doxee nga xam ni gàllaaj dëgg dafa am. nit daan ko toppee. yooyu yëpp day am des fois nit dana la làq foo xam ni caaxaan du ko dindi sëriñu como du ko dindi sëriñ buy làmbatu du ko dindi kooku sëriñ dëgg moo koy dindi ndax makan man mën naa liggéey nit man. barke Seexul Xadim ma liggéey la. côté la code code secret la ba boo demee ci sëriñ mu lay seetlu. danaa la sa yaram sa yaram amul liggéey. te fekk na yow mii li ngay jàmba say rab bi liggéey la loolu loolu mbiru lasraar la bokkut ak ay ñaan yi su fi lasraar la lasraar la mooy côté ko nga xam tey ji da ngay liggéey nit ki ba pare man masalan man noob jigéen noo noob ko ba pare saa bu jigéen gi jàmbatee lu koy metti ci yaram dem ci sëriñ toog di seetlu wala mu dem ci seetkat di seet seetkat danaa sa yaram bi dara nekku ci te fekk na yaram ba liggéeyam ci yow mi koy yow mi ko liggéey yow yaa côté yaram bi loolu ci lasraar ci lay doxee loolu nag mooy ñaan dëgg des fois sëriñ si dañ ciy juum naa naa kii kenn liggéey ko raba ko jàpp wala sa te fekk na liggéey moo nekk ci yow mmh. sëriñ ba moo ko ko def parfois nit yor ay àddinay gàllaajam mmh. mu jàpp ni kenn mënu kaa jàpp mmh. nga toj ay gàllaajam te doo ko woo doo ko def dara yow mi koy ñaan yaa xam doomu aadama rawaxaanam ak yeneen ak yeneen li muy làmboo nga toj ay gàllaajam mm-hmm. yooyu yëpp day am ci xeeti ñaan yooyu yëpp nag boo ko mënul mm-hmm. pour nga jëflanteeg nit dëgg-dëgg ci baatin ak ci saayir day jafe mm-hmm. faaw nga man di toj gàllaaju nit ba pare liggéey ko faaw tamit ngay côté nit ki ba sëriñ du ko mën a yàqal parfois xam lu tax ma wax la loolu côté lu tax ma am solo muy da nopp diggante man ak keneen ngay noob jigéen gi sentir ne yaramam daa diis fii ku fi yaramam diis ci sëriñ lay dem léegi bu demee sëriñ sëriñ jox ko sangat mu toj noob ga yàquwaat ah, da ngay fexe ba côté ko ba nga xam ne tey saa bu toogee sëriñ sëriñ danaa gisuma dara sa yaram bi daal lu ci nekk jaaxal ma ni ngay ni feebar di seytaane di côté feebar ba boo demee ci hôpital ñu rajo la def la lépp. ni gisuñu feebar ci noonu nga war a amee yooyu xam-xam di côté tey jii nii ba képp koo xam ne tey toog na sëriñ sëriñ danaa gisuma dara ci mm-hmm. gis nga euh, li ci gën a yéem sa même jëmmi saa bii ci xeeti fay wax comme ñoo xam tey dañoo am problème mu famille wala ñuy xëccoog teere wala ñu war a taxaw tribunal wala tey jii nii ñoo xam ne tey jii ci wàllum suuf la nit coow wala coow lu mën a nekk rek wala ku yor ay ay xaalisu jàmbur war a fay. lii rek dañu fay day fay wax. lii rek day fay wax nii nii nii nii day fay wax bee neenaa naa la da ngay jël téere bi bind ko bii nag doo jël téere bi bind ko bii nii ñi nga xam ne ñoo am fii daa am lu muy àndal loo xam ne moom lay àndal nga door a jël tur yi ñi nga xam ne tey ji ñoo seq cooli nga nga bind ko ci saab bi ba pare jël loola ànd ko ak ñoom. ki am problème bi dalay indil morsaam yéreem nga jël ko ak lii boole ko ŋaaw ko ba mu dëgër yóbbu ko fi nga koy bëgg suul ñu suul ko fa moom ci ay armeel boobaa nga koy suul kon nga xam ne delloo na fa mu war a na mu jógee ci armeel nga koy suul wante nee naa la problème boobu ku mënta yëkkati néew bi wala nga yëkkati saab bi wala nga yëkkati néew bi wala nga ko sangoon wax loo ko doxloo ko yaakaar naa problème kenn du ci waxati te ku ci ëpp nag sens nekk di mbel mbeli ja coow la lànk te bàyyi moom boo amul sens yaakaar naa danga fekk fekk ji ba moo tax soo boo xoolee coowul suuf baaxul coowul fami baaxul koo ci gis mu lànk te bàyyi asendra bu dee coowul suuf du ci jariñu bu dee coowul leneen xaalis du ci jariñu kon nga wax ra xam ne coow baaxul hmm. ma gisaat fi sëñ bi beneen secret boo xam te ni yaakaar naa ne tamit dinaa la ko laaj muy lii lii nag dooy na waar lool lool lool lool sax lii galang la xam naa nag di gën a sub la ñuy tëjee ci wàllu présenté bi. ay cuuraay la rek xeeti cuuraay seytaan cuuraay la cuuraay seytaane la rek yaa ngi gis nii yaa ngi gis nii lii kii la euh, lii nga gis nii kii coton kii la rek mooy coton kii ni jaay ci garab yi waaw moom la moom la moom la moom la ni jaay nga xam ne yii lay àndal ak yeneen a yenn yoo xam ne xeeti cuuraay seytaane la képp koo xam ne seytaane jàpp na la wala am nga jafe-jafe boo tëddee di nelaw euh, di tiit guddi geeg gis loo xam ne neexu la rek boobaay suuru rek la <laughs> suuru rek la waaw suuru kese la waaw bisimilah. bi tamit ñu ñëw ci li nga xam ne yaakaar naa ne ci làmb yi nga xam ne ci la ñu jëm si. ndax yaakaar naa ne ku ne xam ne le 5 mai diggante Sa Thiès ak ki nga xam ne moom moo di Eumeu Sène ña ngi ca jëm waaye ci combat bi tamit le 28 avril muy diggante Alioune ak ki nga xam ne moo di Coins mu nekk ay combat yoo xam te ni combat yu doy waar la Balla Gaye tamit Tapha Tine yaa ngi gis vidéo yi ku nekk ñoom ñaar futteeku na wane li nga xam ne moom nga liggéey woon ko say fans waaye ci li may njëkkee mooy Alioune ak ki nga xam ne moom moo di Coins yaakaar naa ne dimanche bii la. waa ak Coins de dimanche la yàlla na si yàlla yóbboo jàmm rek mu jàll ak ndax euh, làmb moom nee naa la mënta wees lu dul làmb mm-hmm. tàkkusaan bu ne am na fi mm-hmm. daanaka bu fi am da naa amal na fi rek mm-hmm. yàlla def tamit ñu war a bëre Quench nag nekk xale boo xam ni toog na dix ans xama neuf ans yoo xam daanuwul ñàkk daanu gi nag des fois day nekk ci sóoraale gi parfois mbëri ñooy ragalante seen biir ba jël nit fobiri ko fobiri ko boo xam day ëpp day ëpp ndax Yékini ngi ni demal na moment boo xam ni du ci mbiri gàllaaj nit ñi doon deman ba ragal ko bi ko Balla Gaye taxawee dëggal boppam ci la ko daan yooyu tamit dafa day am ci mbëri dafa dañuy ragalande seen biir may nit ki nag benn pouvoir boo xam ne xañ na eggu gu fa wante Quench tollugul foo jii nii war naa mën a te booy yëpp tollugu fa ndax am na booy yu gën a tëw fii fuuf kon nga xam ne tey jii nii bu toogee dix ans bëriwul rek yenn yi xañ na xale yi ñoo koy daw yenn yi tamit xañ na daa amul combat muy war a bëre ak Alioune nga xam ne Alioune tamit ku ko xam-xam ni bëre bi am na ko te néewul doole tamit te nekk na xale boo xam ni tamit ku am avenir la ci làmb la ëllëg moom it tamit bari na lu ko sonal loo xam ne teggi bee ko sonal xale yi ko doon teggi bokk na ci tamit lu ko yàqal ci làmbam ak làmb joo xam saa bu ñëwee war a confirmer wu final ba mu war a ñëw bëre final bi jël final bi moo koy të comme làmb ji nga xam ne moom la jëmee nga xam ne mooy buntu àddinaam sax bu ko daanee làmbam day gën a ubbeeku comme làmb yi la dese na man wante ñoo ngi koy ñaanal moom Alioune ci barkeb Sëñ Fàllu yàlla may ko ndam bu sedd guy ndax gis naan taalibe Sëñ Fàll la te gën a jige gën a yey xaw ma nu ko olof di waxe daal te nit ki bu la bu la jàppee rek jàpp ko. bu dee nga budul loolu dañ koy ñaanal yàlla may ko ndam ci kaw koyen ci barki sëñ Fallou. daa koy ñaanal maa ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam ci barki sëñ Fallou. ñaan ñaan naa ne damaa ñaan ni ñaan ñaan ak jullit. mooy ñaan ak jullit mooy sañ ngaa gis ñaari jullit ñu ñu ñu ñu nekk. di bëre wala ñu kii. nga ñaan ci li nga xam ne tey jii nii moom moo nekk sa xol rek. Mm-hmm. xam nga man xaw ma Koyens Alioune Seye laa xam. Mm-hmm. ndax Alioune Seye lu metti metti gisante nan toog nan. waaw kon xam naa ko waaw faral ko ñaanal ko yàlla may ko ndam ci barki sëñ Fallou da ko faral ñaanal ko waaye ñu ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy di la 5 mai ah daj dëbb boobu combat boobu doy <laughs> moom combat boo xam te ni révélation la Sa Thiès Eumeu Sène revanche waa làmb juy neex la loo xam ne du wax sax revanche la ndax revanche moom mënu kaa nekk kii magam la daan kii rakk la. problème da koo waaw waaw loolu loolu loolu moom. waaw loolu moom dëgg la ànd bu ko bëri day sonn de. bu bëggee bari ni booy ñaam moo ma daan. ama seen daan Balla Gaye mën naa dem ba def loo xam ne mbetteel da ko cay am. kon bu doon ñëw damay jàpp ne man maa war a bëreeg ama seen. ama daan na Balla Gaye sama yoon nekk ko ci. Sa Thiès booy daan na ma loolu ndogalu yàlla man la. man ak Sa la man ak Boy Niang la mu ñëw bëre ci fulla ak fayda que le maire gagne ande daal laa la ci waxal muy ñoom ñaar fii laa la koy waxe pour nga dégg ko Eumeu seen Sa dina am koo xam ni bala moo bëre dina am lu muy jàmbat ci yaramam wala bu bare ba pare yéen ci yaramam ba pare diggante Eumeu Sène ak Sa Thiès li may wax nag waxuma ko ngir ñoom ñaar tëbëri leen wala <laughs> nangam li may wax ngir ñaa ko Sëñ Tuubaa lu am la ci kenn ki damay bañ di tudd tur wante billaahi wala mën naa ni diw yow mii di bëri ak diw la cinq wala la demal nga ñaanlu ji nangam sa nangam bi moo ngi metti te barke alxuraan dara ndax dama dama kaa man dama koo gis dama tëdd gént ko ba pare gisaat ko xoolaat ko gisaat ko ndax man ku ci ne xam naa la yaa ngi wax naan xam naa ko bëri na feek nit nit jox ma turam ak turu yaayam ama seen mi xam naa ko xam turu turam ak turu kon lu ma ciy wax lu nekk rek lu leer ndaañi la man bàmmeel laa gën a ragal ci doomu aadama te ñaari malaaka ñoo ma séq wante giñ naa ko suñ tuubaa Sa Thiès ak ama am na koo xam ne bala moo bëre dina jàmbat lu koy metti ci yaramam wala bu bëree ba pare te loolu ci mbiri gàllaaj la am na koo xam ne fii may wax ak yow ñu ngi koy jekko bu baax bu jógul ci boppam te mën naa laa wax li koy metti ci cër yu gën a am solo ci doomu aadama ci làmb non du ma ko wax cër yi gën a am solo ci doomaat du ay biir du ay dënn ndax nee naa làmb loxo la ak i tànk loxo ki tànk rek la loxoy jàpp tànk nag moom mooy taxaw wante yii ma la wax moom dina am loo koo xam dina ko ci jàmbat ba dana ko sonal mm. wante nag bu jógul ci boppam mën naa am mbetteel ci suuru làmb ja te te sëñ daa mel ni ci combat la 5 bi diggante Sa Thiès ak Eumeu Sène xam nga kii daan yow leer na la. ki jeeg ko de xam naa ko. wante jël bi moom gisaguma ko ci. xam nga ne am nga ku jeeg. gis naa ne am na koo xam ne bu dee dëgg rek ne xam ne moo jekkoogoon ci gàllaaj te nii muy def bu ko bàyyiwul te mën naa moom làmb ci wante taxawaayu jël moom gisaguma ko moom. Hmm? moom gisaguma ci bu dee dëgg rek ne xel. jekku tey bu la seet si woon pare nga ba mu am ndam jël ndam li. muy Eumeu Sène muy Sa Thiès ku ma ci seet si ku ma ci seet si damay waxaale yow ni la prix sàngam ban juwoo ci man la jëlal xaalis boobu nga dénk ko nangam nga jël ko nga yóbbu ko bu la neex nga yóbbu police xaalis ba boo daanul bul bul ma jox xaalis bi boo daanee nga indil ma xaalis ma jëli xaalis bi muy Sa ak Reug Reug képp ko ci ñëw garanté nga garanté nga signé moom muy Sa muy Eumeu Sène giñ naa ko sëñ Fallou mi ma yaakaar nekk ci kaw prix bi ma la wax boo ci nangoo dama naa la bul ma jox benn dërëm jëral xaalis bi nga teg ko nga yóbbu ko police wala nga yóbbu ko fenn wala nga joxal ma ko diw nga jox ko diw boo daanee bul laajte yow xaalis bi ndax jot nga ci ndax jëli naa ko bun la daanee nag jëmal nga jëli sa xaalis <laughs> loolu kay lu leer la moom garanti nga de loolu référence nga xam nga loolu tax ma wax ko muy dama xam ñoom ñaar ku nekk sarax bi la arrangé ak bila la arrangé wut te dama cee xam ci ñoom ñaar ñépp ku ci ne bu ci góor góorloo man ngaa moom làmb ji làmb ji nag moo xam moo xam làmb ji kenn moomu gu ko de suuru làmb ji suuru làmb ji ci duggsi si bi ci dugg bi ci la ni moomee làmb ji daal ki jekku moom moo daa am koo xam ne nag moo awagoon yoonu jekku ba naataangoom bi muy war a bëreel. bu góor moom bu loo gën a def ay bagage naataangoom bi muy bëreel dana am ay jafe-jafe ci wàllu yaramam ba bu ko waxut avant làmb ji bu jógee ca làmb ja dana wax jafe-jafe yooyu ni ma sama nangam moo doon metti dama kaa bërewaale. diggante Sa Thiès ak Eumeu Sène dina am koo xam dana ko ci wax. Mm-hmm. wante nee la ku dul sax. ak amaseen ku ma ci seet si dama naa la jëlal sa xaalis tege nee buñ jógee ci prix bi boo daanee ma jël sama xaalis boo daanut nga jël sa xaalis. garanti ngay signé man li ma lay wax rek dinaa la defal ay ñaan defal lay sarax génne lay sarax génne loolu ay sarax na amul dara amul dara lépp maa koy defal sama boob ay sarax laa lay digal nga def say sarax ma jox la ay bien ak i tegtal nga def ba jour làmb ja nga xool <laughs> ku koy def bariwut. amaseen nag tegtal bu verte bi moom bu mu ko <laughs> andeeti ci laabu ji moom. <laughs> waaw baaxut ci moom baaxut baaxut di verte yooyu doon comme yi ko dalan konti tafatin noonu baaxul couleur bu ëpp bu fees ba mu ëpp baaxul ci làmb gis nga bu nee la ngembal ngembal verte lu wert loo ci am doy na bu dee kaala sax doy na <laughs> bu nee la takkal morso verte benn morso su ndaw sax wala morso buum verte yi sax doy na wante boo jëlee bëgg kaa def lu baree bari day dëppët ne sa làmb mm-hmm. làmb ak football ñoo yem mm-hmm. gis nga bu nee la benn caagari bu cent franc nga war a saraxe mm-hmm. nga jël caagari mille franc saraxe ko yaa ngi dëtur détourné sa làmb yaa ngi détourné sa ndax nee naa la bëri ko bu feesee boo ci yàggee di sotti day dem ba bal ndox mi wa ndax ndax may tuur yàqu lay mujje bu la nag defal tegtal bii def ko ca comme noona yemale ko ci bu nee la benn sondeel jëru ngay jël téeméeri sondeel di saraxe ndax yaa ngi na say mbir mhm. saraxeel benn ba ndax benn ba ca la taxawe mhm. ban na mbëri nag xër moo leen di yàqal seen làmb dañuy mhm. moom làmb ba suur si ci sarax yi ak ci tegtali ci leen dem yàqal seeni làmb sëñ bi tey ak yow mooy dama gis kalan koo xam te ne damay gis yenn mbër yi di ko yor loolu nag bëgg naa la koo laaj tax dafa maa jaaxal trop te ñu ngi ko kiyee wëñ lii lan la lii won ko yëkkati ko nit ñi <laughs> waa lii moom makkat waa lii moom makkat da ngay gis mbër yi di ko di ko di ko yor lii nag dafa nekk loo xam ne fi koy jëlee reen bi du reen bu baax duñ tudd garab gi ñun damay wax ni ñaan mooy sama métier ma ñaan cedd laa si lu ma jaral dama koy def ndax ci laay tedd ci laay tërale ci laa yor sama bopp yor sama njaboot kon duma ko caaxaane li mag ñi doon def laay def lu ma jaral ci la gis nga reen bi boo ko wutee pare ay dem ginnaaw kër ngay jël kiye ko ci reen bi sëpp ko ci reen bi reen bi makkan di ci xool nit ñi baaxul sax jàkkaarloog doomu aadama xool ko ci nii sax jàkkaarloog doomu aadama ne xool ko ci sax baaxul lii laa la boo ci xoolee nit koo xam ne tey jii nii daa ñàkk kaaraange yaakaar naa nit kooku moom àddina àddinam yàq nga ko ndax ci jafe-jafe kese lay dox ci jaf-jaf boo gisee mbër yi ñu leen koy xoolale ñuy daw loolu gis nga lii même mbër bu ko amee nii nit ku am gàllaaj laa wax da moo am mbër la mën a boo ko ci xoolee gàllaaj gu mën a takk suñu borom mën na kaa toj yée makan dafa am loo xam ne baaxul li may wax ni xam séeréer si xam nañ ko baax des fois da ngay xeeb lu ndaw lu ndaw loolu moo lay rey non wëñ bi comme tey jii nii wëñ bi wëñ yi kii wëñ yi cent yi la rek comme tey jiin mooy waral mu mën kaa téye xam nga kenn mënta téye bant bi def nii te bant bi daa war di sësaloo chaque jour xam ne tey jii nii da ngay jàkkaarloo moom di ko gis nga xam ne tey jii nii kii koo ci xool ku nekk baaxul mi ngi mel ni nga jël dàllu càmmañ rek am foo ko faree ñëw di ci xool nit hmm, loolu baaxul dafa am loo xam ne da nga koy ñàkkal fayda te fekk na saa boon la ko defee bu doon yow cent pour cent nga yow jëmm ji nanga xam ne soixante dix pour cent yëpp mm. jël nañ ko ci yow mm. kon bul di ñàkkal yu fayda ñàkkal fayda dend li mm. lu baree bare laa ilaha illallah dafa am yoo xam ne baaxul xam nga lu tax mu baax mu ci ci yim jaar bant bi garab garab googa buñ ci ko jëlee ci garab bi ba pare fan ko sëpp ban ko fan ko sëb ba pare ak yeneen a yeneen yoo xam ne ci lay ànd nga xam ne tey jii nii nii nga gisee nii di ko ñàkkal fayda mën na laa kii parfois nga gis ay làkkat yoo xam ne dañu yor ay xeeti bant yu ñàkk fayda nga tooñ leen ci bant boobu ci dañ lay defee lu bon nga xam ne gàllaaj dafa am mm-hmm. gis nga daanaka jël ay dara di xaaw di ñàngal yépp am na yu simple yu ko gën a yomb yoo xam ne mooy tukkal àddina mhm. te yooyu yëpp ci xam-xamu séeréer si la ëppee mhm. séeréer si ngay gis mbërum làmboom séeréer di bëre be benn socc lañ koy jox mu jàpp di socc nga naa socc bi de sëriñ bi dakaa ndax te fekk na socc bi mooy leeral ay mbiram mhm. feek mi ngi socc di siiñ di ree ay mbiram noonu lay def di leer nañ ñu jox ko benn seetu rek pour muy seetu ci boppam di gis boppam nga ñàkkal ko fe te fekk na seetu boobu moom moo lay daan ñu jox ko benn xaaw ci ndiggam wala mu takkaale ko ci ngembam saa boo téyee yow ngemb li da nga koy bàyyiwaat ah, ndax day mel ni day mel ni da lay lakk wala soit day mel ni day am ay puso yu la fay jam wala soit day mel ni da leen ñu jox ko fi ni nii loolu ma lay wax nii dama koy liggéey gis nga am na suuf soo xam ni ci ginaar guy boof lañ koy wuti ginaar guy boof boo fexee ba am ginaar guy boof mbëri làmb bi yi laa koy wax boo ci suuf si boo ma ko andilee dinaa am lu ma la ci liggéey loo xam ne bu arbitre di waaj sifflé ko koy sëlmoo Modou Lo daan na ko sëlmoo ay jamono gis nga loolu boo jàkkaarloog nit ki di bëri nit ki yow beneen nit lay gis yow beneen beneen ginnaaw ay jamono Modou Lo ba mu ay laay bu ko def ñoom laay biyee dañuy daw a daw a daw ba ba daanal seen bopp ay isaap yi gis nga leen ay bàll juuf gis nga leen suuf soosu baaxool ci ginaar guy boof ci leen koy jëlee xam nga ginaar guy boof boo dee jël suuf si day ko day fireeku bu dee ku soxor sax da ciy boole di la cofaale boo ko ci amee nag ba andi ko dinaa am li ma liggéey loo xam bu ma la ko ci defalee boo doon dajeeg mbër mi ni moo gën a ponkale ci àddina wala moo man ci àddina nga sël moo ko dalay ragal. Mhm. jërëjëf Serigne Cissé waxtaan bi am na solo lool kàddu gu mujj ala lan ngay tàggoo lan ngay wax. waaw santaat yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu salaam di ñaanal suñ Muntaxa Basiir suñu borom bàyyi ko fi mu yàgg fi lool tam wér di ñaanal tarixa yëpp. Tiijaan Xaadir Laayeen Ñaseen ñëpp suñ borom bàyyi leen fi ñaag fi loolu tam wér di ñaanal waa diaspora bi suñu borom defal leen jàmm ba ñibbi seenum réew xale yi jaar ci yoonu microgora bi suñu borom def yàlla bu seen yaakaar tas ñoo ngi ñaanal ñëpp daal di santaan ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni kàddu yi lu ci dëng ñun jàmm.